asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu wa bashiri saabirina allazina isa asabatuhum musibatun qaalu inna inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun waaye nag lu ko jëkk mooy wala nabluwannakum bi cheyin min alxawf wal juuci wa naqsin min al amwaali wal anfusi wa thamarat kon li ñu bëgg waxtaane ci loolu étape bi kon ci ndigalul cheikh Mouhamadou Mountakha xafidahu llahu war a raha ay ayadahu ci ndigalam ak kàddoom ndigal lim ma jox ngir xew-xew bi nga xam ne am na ci dëkk bi mu jox ma ndigal ne ma li may def lépp naa ko bàyyi dem ba àggal fa sama bopp ba gisee sama bopp la xew muy lee xew ca Darou Rahman ak Pouf di muy basee ba nga xam ne dafa fàq ba daanu indi fa yàq-yàq yu bëree bëri li ngeen di tuddee euh, catastrophe naturelle la daanaka kon muy mbir mu rëy moo xam ne sax jërutoon waxaat ci bitti waaye li tax ñu di ko leer mooy fàttali ndax yàlla def na liggéey bi la ci ëpp fa mu tàmbalee ba nëgë ni maa ngi ko doon xam. étape buñ ci mos a toll it ñii moo koy leeral kon nag bu fekkente ne lu ëpput at mbir am na amaat te ba mu amee daaw métti na ndax yàq na toolu jàmbur yu bëree bëri ba daalo daaneeloon na économie ñi daay yëngatu ci wàllu mbayum dër bi ci foofa te xam ngeen foofa la ëpp ci dëkk bi fale seen loolu di jóge daaw itam ñi yoroon ONAS jëloon ci engagement wax ne danañ ci def nangam dëggal naa def nañ ci ay jéego kon ñu leen ci sant si jéego yooyu ñu ci def waaye jéego yi nag dafa des ndax lu ëpp at ba daanu ren ji yàqaat na tool yu bari ñoo xam ne seen yaakaar yëpp mbay la woon ñu bay seen tool ba tool yi noppi bañ bañ bañ bañ deqi ba noppi bay xaar war a farmanko ndox mu jël yóbbu lépp bokkut ak tool yi der yi bokkut ak wal gami wal nga xam ne kenn xamul fu mu jëm. fa muy àgg ndax xam ngeen lu tax dëkku Touba ndox mi fi jógee lépp jaar ci bassin bu war a jàll Kër Kabbu foofa la euh, mooy centre bi kon foofu war na doon liggéey boo xam ne wartu doon liggéey rek ñab-ñabal ndax ci CRD yi ñu doon def ci màggal Touba ci bureau am na ñu fa laajoon loolu ngir wax ne ndax bassin bi xóotaay bi waaye ña leen fa teewaloon jëloon engagement ne danañ ko def waaye foofa itam day liggéey boo xam ne di liggéey bu tuuti. ndax tëli moo jëm njurul moo jëm Taïf kon yoonu mag la jëm daara Rahmaan tëli ba dagg na boo fa demee kenn mënatu faa jaar boole itam ñàkk sécurité ga fa am ndax xam ngeen ne ñi ñi nga xam ne dañuy dogale nit ñi fu ñu xool xam ne oto mënatu faa daw bu baax dañ fa taxaw di dogale nit ñi kon loolu ab liggéey la bu rëy boo xam ñu ko seq ñu ngi ci soññ nguur gi ci ndigalu sëñ bi di leen ko fàttali ne nañ seet nu gën a gaawe ñu taxaw ci jàppale ci nit ñi ndax nit ñi sonn nañ te buñ jaaxalee ci siñ biir lay ñëw amuñ fenn amuñ fenn fuñ jëm mënuñoo taxaw di manifester waaye sonn nañ ba ca deset ci at yële yàgg na boobu suñ Sidi Muxtaar fi ne woon waa Pof di di njabooru suñ Modou Xari suñ Modou Xari ku Serigne Touba fonkoon na ñëpp xam nañ ni mu demee ci yoon wi yàlla def bañ fay bëgg def base ba gënalu leen woon dañoo gàntu te ñoom ku leen xam ku xam ne nit ñu gëm li ñuy def la bu toon kàddu sëñ bi ba àdduna tukki nit du ko fa def ba yëf yi jafe it si Cheikh Sidi Mokhtar joxe woon ndigal ba leen joxe ndigal boole leen ak Abdoulahad Ka maire bi ak Modou Gueye ma doon taxawu yëf ya ñu ñu jël engagement bàyyi ngir sëñ bi def ko. waaye boobu itam waxoon nañ dana metti ci ñoom ndax ña fa dëkk kenn wératut ndax yooyu bari na fa léeg ñu gis fa ay ñàngooru ki jaar lu ne fa xew ndax na na barab bindoo. booleeg tali ba nga xam ne kenn mënatu faa jaar booleeg eh, xuttaan turux yi nga xam ne ñoo fay am di dogale nit ñi ba ca des it ñu ñu wax ne lëndëm gëm lëndëm tax nañ ñàkk sécurité gu yokk ba booba nguur gi ka fi newoon ministère énergie jëloon engagement ne darañ ci def ay làmp ba mbër waaye lool boobu ak léegi mi ngi bëgg ma juróom ñaari at wala juróom-ñett ba gën defuñ ko kon na loolu tax ndax eh, bu toll loolu rek dañ leen koy soññ ci biir di leen ko fàttali comme ni ñu baaxoo ndax yoon wi moom noonu mooy seenu doxin waaye nag toll na foo xam ne liggéey la bu jàmp boo xam ne buñ ci taxawut mën naa gën a indi fitna ndax xam ngeen ndoxam dëkk yëpp fa la jaar ren xam nga ne suñ borom moom euh, yunazzilul xaysa min ba'di ma xanatu moom fu muy wàcc taw moo ko xam indahu ilmu saa wa yunazzilul xaysa wa yaxlu ma fil arham moo xam waxtu woon lay taw météo yëpp dañu natt rek comme kenn xamul nu muy toll te gis nañ ne daaw ren ji nit ñi dund nañ lu métti métti ci biir dëkk bi te li génn ci kër bari na ñoo xam ne toxu nañ seen kër dem rawatina biir centre biir Touba bari na lool te assainissement biñ ci doon def bu fi àggee fii ak déwén buñ ko yokkaatut waajal ko ci at mii bu déwénee di gën a métti ndax ren màggal gi fekk na waxsal bi ne ci digg bi. waaye bu déwénee ci njëlbeen gi lay ne mm-hmm. kon boobaa day fekk waxtu bu gën a métti kon nëgëni si mooy waajtaay bi ñu ko war a waaj bañ ko yemale rek ci biir bi ñu ci defoon daaw waaye dolli ko xam ne tëkk bi moo toll noonu ndax ndax le suñu saa daa wax naan ak maandoodiku ngi tàmbalee ci yemale ñu yàlla yemalewut mm-hmm. waxoon naa ko ca réunion bi ñu doon def ministère de l'intérieur ne leen Tuubaa ñi ngi bëgg am gàllankoor jafe ndax bu fekkente luñ fi defar dañuy natt ne ñu ko def ci bi def ko fële. te Touba dëkk boo ci nat benn quartier ci Touba ëpp ko boobaa loolu du doonu maandu ci ñi fi ñi dëkk te état bi nga xam ne moo yilif ñëpp di séddale it yaakaar naa buy séddale fu ci ne day xool ñu fa dëkk ci nit di xool dafay génn ci koom-koom bu delloo ko fa kon nag loolu ñu ngi maa ngi woo léegi directeur ONAS ak ministre de la sa ministre bi yor euh, assainissement bi di Serigne Mbaye Thiam ngir soññaat leen ci nu mu gën a gaaw ñu def ci yitte def ci taxawaay jàllale ko ba ci eh, président bi nga xam ne moo di yilif nga xam ne ci liggéeyam day def waaye nañ xam ne buñ ko yemalee ci lañ nattoon daaw te dolliwaatuñ ko bu déwénee jafe-jafe bu gën a métti mooy amal moo desaat leneen itam mooy fora li ñuy wax forage rabattement yi nga xam mooy xëcc nab bi daa wax ne def nañ ci ñaar fukki forage ci diggante ñaari at yi waaye nañ xam ne bu fekkonte ne téeméer lañ ci waroon def defaguñ ci fukk kon ba nëgë ni nab bi ren dafa yokkuwaat euh, ñëpp koy jàmbat daanaka àgg na ci fi jege jumaa ji sax ëppatul mètre nga jot ndox mi loolu na kon buñ ci deful liggéey bu rëy dana indi gàllankoor te Cheikh Mouhamadou Mountakha sax ci yitteem ak yërëm yërmande ak xam responsabilité bu mu yor dem na ba àgg ci joxe ndigal ba fii may wax yow ni am na ingénieur yoo xam ne jox nañ leen ndigal ngir ñu xoolal seen bopp ngir jëm ci gàttandu bu fekkee état bi nar naa yeex ndax yëf état du gaaw boobaa sëñ bi ci boppam defal ko boppam wooteel ko boppam taalibe bi Sëñ Tuubaa yi def ko loolu war naa toll ci ñaari semaine ba ñoo tàmbali nañ cee liggéey ndax xam na ne buñ ko gëttanduwut ndax ñetti at a ñuy soññee soññee nañ ci bitti soññee nañ ci biir waaye gis nañ ne fi mu àgg dëgg-dëgg day mel ne ñun ni ñu koy dundi ñoom xamaluñ ko noonu kon nag loolu rek mooy kàddu yi ñu ci doon wax di mosaw borom tool di ñaan rek suñu borom wutal fa lu ko gën te nguur gi nga xam ne ñoo yilif nit ñi itam te yàq-yàq yu mel nii ba amee ndax daaw jéeg yaakaar naa digoon nañ leen ne daañ leen dimbale Abdou Mbacke nag yaakaar naa xamoon na ci dara waaye loolu tam yaakaar naa mujjutoon fenn kon moo tax ren jii bi ñu jaaxlewaatee itam ci sëñ bi la ñëw sëñ bi joxal ma ndigal kon it nañ fexe ba ni mu baaxoo amee fépp ci Sénégal fu ngeen dégg lu lu mel ni am fa. ña danañ leen recensé xam ña fa yàqu la xam la la fa yàqu luñ leen ci may dimbali ñu def ko loola itam nañ xam ne loolu euh, sëriñ moom am na ci ñoom yërmande lu mu ci war dana ko defaa loolu war a goru état la kon loolu rek mooy kàddu yi